Pastor est-ce que aussi euh, c'est pas facile 61 ans euh, après les indépendances on accuse toujours l'Occident pour ne pas citer la France si bépp malheur boo xam ne rek arrivé nañu parce que si on prend les autres pays euh, d'Afrique anglophone comme le euh, comme Ghana ñoom fu mu toll nii delloon importé seen ay matières premières comme euh, li nga xam ne euh, mooy euh, cacao bi dafa chocolat mais dañoo def ñett catégorique donc est-ce que ñun nekk ñoo war a jógee ci position d'assistanat boobu bu bu ñu xamee que la France ou bien les occidentaux ñoom duñu mës a lâcher prise aussi est-ce que c'est pas à nous de forcer notre indépendance alors <laughs> il y pays très les dix les plus puissants en Afrique amul ci benn francophone Nigéria moo nekk en tête Afrique du Sud topp ci les dix ci li ñu wax. ça pose problème. mais la mais, faute mais à ça qui? confirme ou plutôt ça consolide l'état d'esprit qui est que il y quelqu'un qui nous empêche de progresser sa quelqu'un là ministre de l'intérieur bu bu Italie wax na ko dem na sax ba ne France yéen a bombardé Kadhafi yéen ko rey pour empêcher projet bi ñu amoon Italie ak libi pour que ñu mën gérer la migration là malheureusement vous avez foutu ce bordel là excusez-moi l'expression léegi tey jural ngeen ñu benn problème bu toll ni àdduna boo xam ne Europe mënatu ko gérer alors que Kadhafi était capable de gérer cette histoire là mooy que keroog laay waxtaan ak benn kilifa mu ne ma mais xam nga laa guerre du Biafra mu ngi amee ci biir Commonwealth nga xam ni ñay làkk anglais rek la mais pourtant guerre ba am na diggante Nigéria Cameroun ak la ko wër. xam lu ku waral guerre ba ka ko sos suñu gaañi te pourtant ñoom làkku ñu anglais de tubaab la ñuy làkk mais ñoo ruubee ba teg ko pour des intérêts te loolu lan la parce que am na ay entreprises ay multinationales yoo xam ne ñoom seeni dëkk la ils le font à juste raison par rapport ak seen dëkk mm-hmm. seeni ay intérêt mm-hmm. léegi yow ñi ñu war ñiy séqal yaa war a am fulla voilà léegi nan ngay amee fulla te bu fekkee ne fulla bi yaa ngi koy am ci booy am les leaders qu'il boo amee. Ah, donc la Ablaye Wade était un bon leader. donc le problème c'est pas la France le problème. c'est si. nous en l'occurrence si. nos leaders aussi. si je je pas uh-huh. c'est-à-dire que Wade était était était, était parvenu à faire face. Uh-huh. mais on s'est arrangé pour mu dem dévolution monarchique. avec la complicité aussi de quelques jeunes aussi. oui euh, oui bokkoon ci ay mouvements. société civile ainsi de suite dévolution monarchique ñu teg ko. Uh-huh. outillé ko ñëpp na ci ñu ne Karim Wade la fi bëgg a teg doom ji ñëpp xeex ko. Mhm. maanaam ñoom ils ont toujours cette capacité de manipulation de structuration d'organisation du mal comme du bien pour mën a protéger seen ay intérêts léegi ban leader un leader qui a cette capacité à dire non comme Wade oui il nous le faut un leader qui suit follower c'est malheureux alors aujourd'hui fii Sénégal toll. Mhm. on est fier quand on entend Guy Marius Sagna mu ciy dem ak Anne mais le grand problème ça ne suffit pas aujourd'hui tous les leaders potentiels yu nekkoon Afrique nekk ci rampe de développement mën a construire dara on les a massacrés et éliminés avec la complicité de nos parents mooy euh, je prendrai le cas Thomas Sankara. Mm. Blaise Compaoré. je prendre le cas de pas mal de personnes Sylvius Olympio du Togo autant <coughs> ak dema Gnassingbé Papay Faure yooyu la quoi après on se dit donc X personne est le bon leader pour faire ce pays mais l'autre là rubekat bi moom Y moo ko intéressé donc day ñëw sot sotle Y pour ñu éliminer X boo ko defee Y toog gérer affaire bi ñoom ñaan ñu gérer et la population elle est là on lui dit bon écoute dina baax et cetera et et ainsi de suite léegi loolu dafa loo xam ne moo ko war a dindi après on nous dira lan moo koy dindi non du question dindi nii il s'agit pas de ñëw ne France non bàyyi ñu non il s'agit de parler à ces gens là maintenant qui peut parler à ces gens là qui kan moo mën a il faut du courage et énormément de tact énormément d'intelligence et de perspicacité pour mën wax leen ne leen <laughs> les réalités ont changé mm-hmm. on ne peut plus aujourd'hui vous remettre cinq cent milliards de dollars par d'euros par an cinq cent mille un milliard d'euros xam nga ñaata la ci xaalis après ñu ne la cinq cent fois waa ji day garantir sa monnaie mais bala nga koy jox balaa caag nga garantir sa bopp loolu mooy réalité bi. te garantie boobu sax c'est de l'arnaque. oui daf parce que daf ci am <laughs> aujourd'hui aujourd'hui il faut. tey quand je regarde le président j'ai il faut que ñun ñëpp ñu jóg ñu dooleel ko dafa laaj dégg-dégg nag li ñuy wax ni hmm. il faut ñun ñëpp ñu jóg ñu dooleel ko nu ñu koy doolelee en lui donnant la bonne information et qui lui donne la bonne information mm -hmm. il faut que les médias se départissent de comment on appelle de de l'information superficielle le, le président euh, euh, sais pas séduit la jeunesse hmm. le il faut que ñu génn foofu affaire bi sore na il faut que la presse aille plus loin il faut que la presse nous pompe nous nous ponde excusez-moi l'expression mais de grands dossiers yoo xam ni dañuy naan kat Sen TV dem na Kédougou def fa un dossier de mais une heure. Mhm. quarante cinq minutes des jours presque un mois ñu def ko fa monter ko ci benn quarante cinq minutes boo xam ni on montre ce qui se passe. la réalité. on montre par exemple que Sabodola du rek Sabodola y en n n Sabodola yu am or. Mhm. ñu ne Diogo y a du zircon ñu dem ñu wone et cetera que tous les médias se le disent qu'on aille vers chose choses là qu'on dise population populations vous n'êtes pas pauvres li Atepa di wax. Mhm. vous ne pouvez pas être les plus la planète et les plus pauvres c'est pas possible léegi dafa jot nag. nit ñi yeewu mais ñi war a njëkk a jàpp ci combat boobu mooy kilifa diine yi. Mhm. surtout. gis nga bu kilifa diine yi taxawee. dolli ñu ñaan suñu borom sa waay kenn du taxaw suñu kanam au contraire ñeneen ñi ñooy négocier ak ñun mu mënuñu rek nii nii nii sa waay di xëy rek di yow nekk ci factuel après c'est pas possible liggéey du am Milan liggéey du am. <laughs> Milan liggéey du am Pa Mar euh, Pa Assane ngi gis ne aussi euh, promesse yi nga xam ne le président de la république euh, égrené na ko euh, bo yow bëri nga si ay nit yoo xam ne jàpp nañ ni bokk nga si nit yi nga xam ne jàpp nañ certes le président il veut bien faire mais dafay démarrer rek à l'échec comme tous les autres présidents yu fi jaaroon te pas ça est-ce que le mal n'est pas plus profond parce que bu ñu jëlee exemple comme à chaque fois on aime bien critiquer la France par rapport ak ñun suñu tolluwaay dëkk yi que suñu système éducatif bi aussi am na ci part de responsabilité responsabilité bi la waxee ne carrément soixante quinze de la population euh, ils ont moins de trente cinq ans te nga gis ne carrément plus de soixante pour cent euh, hmm. ils ont trente cinq ans paasan nga gis ne carrément da dem ba am sa doctorat da génn à l'université doo mun dara si on prend un pays comme l'Allemagne nga xam ne xale bi mun na di jàng di dina jàng euh, si je me trompe pas maa ngi suivre si benn reportage ba am BFM wala ba xale bi du doublé. Mm-hmm. dañu xool xale bi lu mu mën fekkee mécanique la mën ñu orienté ko fa mu mm-hmm. liggéey loolu. fekkee xam-xam la kii ñu xam ne kii c'est un boo xam ne dafa war a diriger dëkk ñu teg foofu bien formé tey est-ce jotul aussi suñu université yi wala sax suñu école de formation wala suñu école à la base ñu créer ay métiers ay emploi yoo xam ne ku nekk sénégalais bu nekk dina si gis boppam aussi bañ a rek sukkandiku ci système éducatif bi nga xam ne mun nañu wax ne dafa archaïque. ta question est très intéressante voilà, et pertinente. voilà c'est ça le problème Pa Assane. Euh, je pense que beneen président bu ñëwee sax ku dul Macky Sall on aura toujours ces mêmes problèmes fekkee lijjantiwuñ problème d'emploi bi nii nii problème euh, euh, jàng bi ak jàngale bi. <laughs> c'est c'est extraordinaire. Mm -hmm. je je je je vais paraître presque emmerdeur. Mm -hmm. mais du yomb bis bu sa système éducatif doxee. normal jaar yoon ba nga am li ngay wax nii ñi war a def lii def lii ñi war a dem fii dem fii ñu éclore. voilà ñu am a système assez assez fort boo xam ni jàng bi dafay am qualité. parce que du ñëpp ñoo wax dugg université. quand même waaw bis bu jàng bi amee mm-hmm. qualité. formation bi am qualité affaire yi carte gi mel ni luy leer am na koo xam ne loolu arrangé wu ko foofu laa bëgg nga dégg c'est-à-dire que daa am ka xam ni loolu. non bu bu amee. Paasan man kooku noonu laa bëgg ñu génne ko suñu biir ñu ne nous dans nous la. non non parce que les autres pays l'ont réussi quand même. non non les autres pays kii. le Rwanda l'a réussi. Eh, Ghana mu ngi commencé décoller nan la ko le Rwanda réussi de c'est qui le Rwanda. le Rwanda était était dans la francophonie la première décision de Paul Kagame c'était de dire damay rejoindre le Commonwealth. mu génn francophonie c'est la première décision forte qu'il a prise mais laata mu koy jël ay bakkan yu bëri ñàkk nañ leen looloo graaw c'est-à-dire que kan moo créé le malheur Hutu-Tutsi hutu si benn xeet la mhm. pël la ak xalpulaar fii ci Sénégal mhm. kan moo mën a jaxase pël ak xalpulaar fii mooy que kooku ay na c'est ce qu'on a fait Rwanda mais après ça leur servi bi ñu demee ba xam ne dañ leen a jaxase ñu taxaw avec l'aide des anglo-saxons ñu révolté wu génne fa belgique français yeeg ñëpp daal di taxaw yàlla dimbali leen avec beaucoup de sacrifices est-ce que Sénégal pare na pour loolu je ne pense pas. est que aussi la jeunesse pare na pour loolu aussi. la jeunesse ne ne est peut-être pour autre chose mais pas pour ça. Hmm. je pense que yàlla ñu yàlla defal jàmm c'est ce qu'on toujours mais. xam nga ci àdduna femme dafa am am solo femme capacité femme aujourd'hui il faut parler à à nos parents français leur faire comprendre que nous faisons presque une nation commune léegi il faut ngeen parvenir à accepter que nous puissions avoir mieux quand même un temps soit peu loolu benn pas mooy capacité de négociation d'échange de discussion boo xam ne suñu autorité dañ ko war a am mais mais nag ñooñu dañuy nekk ay leaders yu am dayo mais vous descendez à George cinq ñu teg leen ci benn suite ngeen ne yàlla dikk na jël seen téléphone WhatsApp wan ko famille bi njaboot gi ah vous avez vu l'hôtel ah j'ai vu vraiment vous vivez cette étape là mooy que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mm-hmm. mooy que ne réalisez wu leen le défi qui vous attend. et ça malheureusement ñu dañu gis suñu autorités yi loolu dañ daf leen di dal ku ci wàcc aéroport Charles de Gaulle wala Orly li njëkk a ñëw sa xel mooy dal ak marque Adidas. ils sont euh, émus. c'est une catastrophe moo tax njiit ak jiite kat ak ñuy jiite. Mhm. saa yi dañ leen di tànn. waxuñu ko pour dara de. Mhm. mais dafa am solo looloo tax nag ñuy wax ne. Mhm. Sénégal yépp a war a jóg politique. léeg-léeg nga dégg toog ak kilifa mu ne leen wuu moi je suis pas dans ces trucs là. mais ces trucs là pour yow. boo jógul nekk ci ñoom ñu ne ci décider pour yow. Mm-hmm. looloo fi nekk. Mm-hmm.